salaamaaleykum Sénégal ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay Abdou Aziz Ndiaye géewul bi silusé àjjuma ci heure bii rek saay su ne ngeen taamu seen tele bu mag boobu di seen direct tey nag ñu dalal ndaanaan ci kër Cheikh na Cheikh Saad Bou muy kan muy Serigne Bamba sekk ci émission bi nga xam ni moom mooy émission bi nga xam ni ñëpp taamu nañ ko muy dal jàmm ki ma dalal nag ci jàmm laa ko fekk muy talibé Cheikh na Cheikh sabbu ñu tudde ko Serigne Bamba Serigne Bamba sék ma ngi lay ziar. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu taala ala ashrafil khalqi sayyidina wa mawlana muhammadin alayhi salatu wasalaam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim لله الذي لا يعطي gaysan mugisan آتيا بالبسط سواه جل ممتر أمتار معمم الغيوس alaxtaari حمدا لمن على الهدى هداني ثم إلى طريقة جيلاني بارك شيخنا الشيخ سادبو بارك شيخنا الشيخ سادبو بارك شيخنا الشيخ سادبو شيخنا الشيخ أيا خليفة سيدنا محمد yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ak xalif généraux yëpp di naan suñu buntu ci Cheikhna Cheikh Sadbou borom jinne yi taalibe Cheikh Idoum Abdaati Cheikhna Cheikh Hadrami Cheikh Sidi bu yàgg fi lool ci ànd ak wér di nuyu waa seen direct yëpp di wax ne salaamaaleykum wa rahmatullah Abdoul Aziz suñu xarit borom daal jàmm géwél bu civilisé Serigne Bamba Seck fan lañ la fekk ci Ndakaaru tey iko taf euh, ko ñu école 4 bi rek machallah cité 2 cité 2 Serigne Bamba sek ñi ngi lay jaar di la dégg waye Serigne Bamba sek am ño xamné à chaque fois bu ñuy ñew ci yu melni ni ñu ñuy jox ay yobante mais bu ñu démé ba ci biir waxtaan wi di dinañ ci waxtaan Serigne Bamba sek dafa am lo xamni say saa su ne bu la féké ci tàntu yonent bi mom ngoy ibbe ñuy deg alxuraan ju sel sëriñ Bamba sek defe naa ne lolu nga ñu arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira inna arsalnaka shahidan وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيك أجرا عظيما صدق الله العظيم آه، خلي سيدنا نقول nu بامبا فنجا جانكي fan fan ci ndar. sanc biir ndar wala. waaw ndar biir ndar ci xolu ndar mooy sanc ba boo ñu ñi xam ñi xam ndar sayal yu yëpp wala ne sanc ba rek. sanc ba moo nekk boori Pikine ca ndar wala. déedéet nekkul boori Pikine da ngay boo dugg ndar. Pikine ngay ngay ngay ñëw. ngay jot boo ko paasee ay Pikine Angle Taal ak yooyu ngay jot boo ko mm-hmm. paasee nag ba wàcc pont bi. bu la neexee bu la neexee pont wu Sundoone wala pont wu pont wu Looda. wala pont di Ndar wala. non non sanc ba bokkul ak Gendar dafa am sanc kaw am sanc suuf. Mhm. Euh, quartier bii nag mi ngi tudd euh, sanc ba ci wetu euh, baske ba. Mhm. ku ñu naan suñu maam El Hadj Cheikh Bachir Bachir Samb. Mhm. jàngal ñu incha allah ñu yàgg ñu yàgg lool nag ca daara ja nag wax dëgg yàlla waaw. yàgg lool ca daara ja ba nga fa jugee fan nga dem. ba ma fa jógee dama dama ñibbi ndakaaru dama ñibbi si ndakaaru parce que dama boole woon nag alxuraan bi euh, ak ak ak français bi. Mhm. ndax ndar ndar loolu moo fa am. Mhm. ndar da ngay da ngay yeew fajar dem jàngi alxuraan. Mhm. ba 8 nga dem jàngi école wàcc midi dellu si waat daara ja ba 2 heures nga wàcc ñëw añ tuuti delluwaat école. mais njàng mi fan la la duggee maanaam njàng nga alxuraan mais ñu jékki-jékki nga doon. tàggkatu sayidina muhammad naka la la duggé ndar la la duggé bi nga jangé ba paré fa nga commencé wala bi nga ñëwé Dakar nga commencé. non euh, tagu yonent bi waxna ko ci télé yépp luma doon la dama ko namp dang ko namp dama ko namp waaw tagu yonent bi nekk luma jang jàng kenn ko waaw kenn mir mom dama ko amul kenn kula dalal ba dedet a part bi nga jugee ci alxuraan. déedéet sama yaay dafa ma daan ouf waxna ko ci télé yépp dafa ma daan ouf néna ma am chance buñ ko joxé micro. ni ko taggal yonte yonent bi tombeek moom mu uuf ma nii nee na su may jooy mu génne weenam jox ma naan yonent bi antum wasilati lay yawmal jazaa'i wal hashar nee na su ko defee bu tombeek may jooy nee na mën a tekk te boobu mi ngi la uuf mi ma uuf maa ngi jooy ci yonent bi nee na waaye bu ne yonent bi yow Moustapha antum wasilati mooy li ma yëkkati léegi xam naa dinaa ko laal ndax euh, man euh, Abdou Aziz suma première wasila mooy sama yaay. Mhm. te defe naa ne bare naa ci morom doom yëpp seen première wasila mooy yaay. Mhm. sa yaay mi ngi ak yow wala. mu mi noo mi ngi fii te yàlla na fi yàgg lool. Mhm. te ak yaay yëpp. moom taalibi Cheikh na si Saad bu wér taalibi Cheikh Cheikh Sidi Bouye doomu Cheikh Manatoulaye Yarbaana Cheikh Mouhamed Fadal. sëriñam benn jigéen la ma si Cheikhal mooy moom. daf ko Cheikh la génn. sa yaay Cheikh la Cheikh la man avant man may nekk Cheikh sama yaay. dama ah. ñëw fekk mu nekk Cheikh. kon yow Serigne Seck yow seexal na. benn tàkkusaan man juróom-ñaari metteel laa am. kan moo ta kan moo la takkal kaala gi. taalibe Cheikh na Cheikh Idouma Abdiati borom jinne yi Cheikh Alxadraay borom Pikine tali bu bees mi ma tuddee sama taaw bee. Mhm. waaw mooy kooku kooku moo te sama cheikh dafa doy waar Abdoul Aziz. Mhm. dama ko liggéey naan liggéey dama ko liggéey benn tàkkusaan ma am ci lu mat juróom-ñaari cheikh chérif bu ñëw teg sama bopp ci ndigalu Cheikh Alxadraay. ci benn tàkkusaan ci benn tàkkusaan mu warlul ma lim ma warlul ci seex ba. Mhm. ca la ma joxee nag la ma jox. li mhm. ma demal. ne la bi nga demee léegi ñu ngi dégg sëriñ sekk ci télé yi sëriñ sekk mas naa dem Sorano Issa mas na dem Sorano. Abdou Aziz euh, euh, yow xam na yow yow mën ak yow benn danga may laaj xam naa ni li nga may laaj yaa ma ko gën a xam waaye dangay bëgg téléspectateurs yi xam man. bokuna ci ñi nga xam dafa am ño xam ni mhm. direct euh, ñoo xam ne ñi ngi amerique ñi ngi France ñi ngi mhm. Allemagne ñi ñi ngi Angleterre mhm. xeyna luma la xam-xam ñom ñoo ngi dégg Serigne Bamba sek. suñu soñon ñom xamal ko sen bop xam Serigne Bamba sek. ci yeen actualité lay dox parce que ñoñu dañuy top Serigne Bamba sek. ñom Serigne Bamba sek mo leen neex rawatina waa Amérique moo tax faaw nga leral téléspectateurs yi ñu xam Serigne Bamba sek. lan moy ay projet ak lan la defone ak fon la jëm waaw Sorano daal xam naa ne pare naa ci moom ndax dama dama amatuma dara lu may prouver Sorano ak sama groupe bu baax bii nga xam ne ku leen xool gis ma ku ma gis euh, gis leen ñoom te bi ñu waree yëngal Sorano daal yëngal nañ ko bi ñu waree nekk festival salaam itam yëngal nañ ko ba ma fi waree indi festival salaam fii Pikine indi naa ko fi. ah festival salaam yaa ko indi. fii Pikine maa indi fii Pikine ndax dama dama nekk seen élément. Mhm. def demande bi. Mhm. nekk ak ñoom yàgg ak ñoom ni leen nag. am naa droit nag festival salaam wër na. amu ci benn élan bu ma gën benn élément bu ma gën a yàgg festival salaam. mais sëriñ Issa taxaw ci Sorano bi tuuti lu tax nga bëgg a jékki-jékki rek quitté daan ne pare naa ci Sorano. waaw parce que da def dama dama def defati defati defati. defati ñaata yoon. man est-ce que gars yi mën ngeen ko compter ah nee na sept fois waaw. sept fois. def naa Sorano ba Sorano nekkee nag ci quatre cent mille nag laa la wax. waaw ba tey ji ko xam Sorano xam mi ngi ci huit cent mille bi nga defee après bi nga jógee Sorano nga organiser waat festival salaam. ma indi ko fii Pikine fii lu ne xew fi Pikine loolu moom def naa ko fi. Mhm. lépp nag ci taggu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak euh, ak euh, ak groupe bu baax bi ma àndal mais Abdel Aziz euh, yooyu sax yooyu yëpp amul sens xam lan moo am sens mooy que kan mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Mhm. kan mooy Seydina Muhammad. mooy mooma booleeg yow yow jàppee woo ma loolu yonent bi jàppee woo ma loolu alxuraan. Mhm. Aziz. nopi garmi ngam waye waaye waaye xam nga len waye li nga ma toppee da nga ni carrément né té bobu ak ak ma sax nga né carrément waye dafa am jang am ki li mako bëgg moy bu jangé ba nodd fekk nga ma sama gëw ni ma waaye goode nak déggagum li ma bëgg tare dégg muy ñaar tari alcorane wala nodd wa dañuy faral di gis jang kat yo xamni ñi ngi jang amna ci ño xamé sax dañuy dañuy dañuy xol yi soko ko ñu gis Serigne Seck ñun say soppe dañ cee bokk bu nu lay seetaan bayit bu ñëw da koy wax te doo xool dara loolu dem nag ba jaaxal ñu ci yow moom moo tax alxuraan jooju ñu ko doon topp ci yow ba léegi nag di ko gis ci yow mais am na ci say soppe yoo xam ne ñu bu ñu sañoon suba nga dem grand théâtre am ñoo xam ne bu ñu sañoon suba nga dem Botora loolu foo ci tool waa maa ngi ci Batora bi Grand Théâtre parce que dañu wax ne dañoo nekkoon ci projet wu am am benn benn groupe boo xamante ni daf ñu doon yóbbu Grand Théâtre mhm. euh, ñoom nag ñoo def lépp mhm. tombeek nag corona bi ñëw kor ñëpp comme ni ñëpp di waxee mhm. tombeek ñu xam benn lieu bu tudd Batora Batora amul ci benn benn jàngkat boo xam xelam mi ngi nekk ci pour dem fa wala boo ko ragal na waaw ah, dafa rëy de dégg naa dégg naa bu bu ngand la boo xam ni la muy def sax euh, grand théâtre defu ko de. waaw yow bokk nga ci xam naa émission waaye bokk nga ci ñi ma yóbbu Batora parce que yàgg nga mu koy proposé. non dama ko dégg rek wax la <laughs> euh, daf leen di nax de bokk na ci ñi ma yóbbu Batora ci ni ma carrément ne gëmal sa bopp dem Batora. Mhm. bokk nga ci ba yàlla dogal it ñu dem fa joxe suñu avance génn le 6 le 5 lañ ko joxe génn ñu ne Macky Sall nee na euh, le 6 le couvre-feu bi di commencé. Mhm. suñu avance ma nga fa tëdd. su Macky bàyyee lépp. gën gën gën gën. lii xew Pikine fii. Mhm. bu soobee suñu borom. ànd ak groupe bu gore bi mhm. ak soppe groupe bi nu mu tudd nu mu tudd. groupe soppi Seydina Mohamed waa ko Cheikh Hadrame Cheikh Sidi ah, loolu nag. gis nga sama xarit yu baax yi soogay ak si léegi waa ko Cheikh Hadrame mhm. ñoom ci daayira bi la ñu bokk. xam naa ne après di leen jox léegi chaise ñu book ñu toog am na ñeneen ñi nga xam euh, ñeneen ñi nga xamante ñi ngi ñëw waaye waxuñu ko ñëpp nag dafa tombeek Eh, di jaale de passage confinement bi waaye sama goro wàññeeku mhm. hmm. waaw maa ngi koy jaale di ñaan yàlla mu xippee àjjana yow sama xarit nga suma doomu ndey nga duma ma la gàntal dara waaye bu doon leneen la wax dëgg yàlla dama naan leen mënuma ko boole. waaw parce que yow bëgguloo lu dul avancement waxuma la man avancement wu dooma aadama yow ñi nga raw yëpp Abdou Abdoul Aziz sax xool moo tax nga da nga maanaam sax xool danga bëgg nii ñi avancé. dangay gis nit sax daal ni ko jël numéro téléphone bi woo wootante loolu. loolu loolu yombul benn bi dañ lay ñaanal yàlla télé bi dem ba am signal. tele bi dem passé fii sa émission bi. sa waa euh, seen direct. Ah, dem nag ba mu nekk ci àdduna bi yëpp nga xamante ni ko taal rek day day day day day jàkkaarloo. télé bi nañ tooyal xol yi waay. waaw eh, ñu tooyal xol yi. waaw waaw ah, kon su ko defee maa ngi nuyu itam eh, air bi air air bi may tëjee nag xam naa ni moom ca kanam lay nekk moo ñaari air yu bees yi nga xamante ni Cheikh Tidiane moom mënu ko. dama tey moom dama koy jëw moom andrek direct. c'est Ana Cheikh Tidiane waaw maa ngi lay nuyu. ak bëgg sama xarit hmm. sama xarit hmm. sama lépp. damay wax ne man nyari ñaari cheikh la ma jox Cheikh Tidiane Cheikh Diop. Cheikh Diop moom li mu naan dootuma ko tuddee. Cheikh Diop ñëpp la. waaw non dama non Baye Bamba Diop Baye Bamba Diop la tudd léegi. Baye Bamba Diop xam nga moom moo ma tuddee doom. ah man benn rakk laa am benn turandoo ci àdduna bi. ndeysaan waaw kon tooyalal di gën a tooy. kon nag su ko defee rek incha allah eh, maa ji ji Cheikh Cheikh micro bi ñu tagg yenen tibi tuuti. ah kii mooy maa jigéen mooy maa jigéen. sa dom la wa sama dom la. Ah. wa mm, ndaysan gis ngeen de say su ne émission dal jamm ni rek lay def day ñew dalal ñepp ci jamm toyol xoli serigne bamba sek Seck. bi ya rabbi laa ilaaha illallaah waa jàng bayti laay. يا لا لا إله إلا لا إلا لا la Sëriñ Bamba si damaa dégg ci way yi ngay way boroom Ginne yi kan mooy boroom Ginne yi borom jinne yi mooy Cheikh Hadraame waaye borom borom nuuru nabi mooy mooy Serigne Birahim mi kii mooy borom nuuru nabi waaw moom la pare ne émission bi ne ku baax mhm. koo xamante ne mi ngi fii Ouest Foire baax loolu ci jaam yi jaam yëpp soxla ko mhm. ndax nëbbatuwul làqatuwul mhm. nëbbatuwul làqatuwul am fu ma teg jàpp na li gars yi naan jàpp ci combat jàpp sama combat man lool. Mhm. ca zaahi zaahir ak baatin borom nuuru nabi. mooy borom nuuru nabi Alaaji Tidiane ñang mooy maamam di muqaddamu Seydil Hadji Malick muqaddamu Serigne Babacar Sy. Mhm. waaw moom mooy Serigne Birahim ñang mi nekk Serigne Birahim ñang waaw moom Serigne Birahim ñang mais Serigne Bamba. Mhm. yow jàngkatu xaadan waaye xam naa ne su ma la ñaanoon léegi ci Serigne Birahim ñang nga wayal ma Serigne baaba Sy di nga ko defal. waaw ba mu neex. wayal ma Serigne Babacar. xalifa. gërëm na sa baay Malick gërëm na yaay ba man man damay bëgg jaxlé parce que Serigne Bamba sek, foo ko rek fek ko fa damay faral di wax nan li tax sétane ku jara sétane am solo kep ko xamni féro fero iji wala da ngay tim khasside yi di ko di jang gën ko jang ndax ko xamni xolul ben yon yoon foo fek ko fa Serigne Bamba sek est-ce que nga bis ñew tay nga dem côté international parce que njang mi dafa yaatu film ni dañuy mi ngi xew ci nga gis ñu yëngu ci kora yëngu ci walu Philippe. Nous bi Philippe. bi wala xalam way Seydina Mohamed parce que avons ni musique bi di importer wo di dem Europe nonu la des Seydina Mohamed di Europe wayu neex la te am ngeen ko est-ce loolu yaa ngi ciy liggéey. waaw xam nga dafa tombé juste euh, sax ñu am ci loolu ñu nekkoon am fu ñu waroon dem jàpp yoon xale yi sax xam nañu ko d'ailleurs waaye ñu ngi waroon ñu ngi waroon tàmbali euh, fii nii rek ci wet gi am fu ñu waroon tëggee fu tuddoon euh, Basara Atlantique. waaw dañu waroon commencer. Mhm. suñu suñu sortie du ma wax suñu deuxième sortie waaye suñu sortie Eh, tombeek nag li ñu waroon def yëpp maa ngi nuyu de passage eh, ku jëra nuyu ku baax moom nee na maay sa ménagère fële di jëkkëru Koura Mbaye xam nga ko Koura Mbaye menn artiste jëkkëru sëñ Fallou Seck moom nekk depuis itali di ma ménager foofu di ma jàppale ci lu bari ñu nekkoon ci yoon ci yoon boobu waaye li xew eh, waaw li xew xew waaye waaye ñu ngi ko waroon commencé nag depuis le vingt cinq waaw le vingt cinq waaw le vingt cinq la ñu ko waroon commencé fii Basara Atlantique di di di di milieu bu doy waar sax bu ñu waroon ànd ak groupe bi. Mhm. waroon dem tàmbali foofu. yëf yi waroon continuer nag ñu commencé dem di dem di dem mais nag. ci côté international bi loolu lan nga fa naroon teg parce que xam nga am na ci jullitu yàlla yi am na ci tubaab yi waaye nag am na benn bruit boo xam ni dëgg la Seydina Mohamed foo ko waxee

style acoustique ci rythme rek. bu douce moom laa lay expliqué man nga cee jàng. déggoo li ma lay expliqué man def naa son boo xamante amul tabala. Baba Amdi maa ngi koy nuyu de passage moo ko joué. Baba Amdi waaw mhm. ak euh, ak mbiibam boobu muy def. Mhm. ak benn waxuma la xalamaay benn gitaar ñu def ko. acoustique moom Baba Amdi. yaa ngi dégg xamatuma sax way bi nan laa ko wayee woon. waaye bi bu ngeen ko fàttale ko ngeen dimbali ma ci. Mhm. bi ma wayee guitare bi. sëriñ baabaam di ñu ngi koy nuyu. di nuyu di nuyu njabootam gépp ah, ah xayru lan bi. jàppal tuuti foofu ma xool. lu lu ah, duus rek. lu duus la. ah xayru lan bi. bismillah maa ngi door de waay. ah xayru lan bi. bismillah maa ngi door de waay. Sëriñ Bamba Seck moo way way wi ku way ma way ku wayul ma way wendun be loolu loolu amul tabala sëriñ lii doy na waar de amul tabala dama ci dama ciy gis ndaysaan waaw te am na am na beneen boo xamante ni xalam kese la ibi banko bambaree ko way ah non sëriñ nag xam nga xam nga xam nga man ci seen direct laa nekk man bëgguma ay làq-làqal émission bi am na loo xam ne bu dee bambara non sëriñ bambara noonu dama ni ci seen direct la ñu nekk na lépp leer ci émission bi nga xam ni mooy dal jàmm wayu bambara sëriñ noo ko mënee waxiitu Cheikh Sadiboo ibi banko mi ma o my old neexul mais téléspectateurs yu seen direct xam naa ne tey mbégte gi ngeen am ah mosoo leen ko am am na am na ñoo xam ne waaw merci jërëjëf ñoo ngi nekk Suisse di bëggee am ñu nekk Allemagne am ñu nekk Angleterre am ñoo xam ne ñi ngi Londres di ñu bëggee mais Serigne Bamba Seck dafa am jëmm joo xam ne nag kooku la ñuy wax Pape Gora Pape Gora Samb muy sunu PDG nekk ba États-Unis nekk nit ku baax. nekk nit ku yàlla baaxal fu seen a jàppale ne ma man Abdou Aziz ma ne naa mun ma bëggatuma benn ndaw taxawaalu ci li ma am sama doole dama koy jàpp muy suñu PDG bu mag muy Pape Gora sàmb nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall rek la bëgg moom lay nooyee sëriñ gis dégg naa li fi jàng dem nga ci bambara dem ci saraxule yi lu ne way nga ko may sëriñ Bamba Seck lan mooy lan moo waral sa tur woowu te ñu gis nga nekk xaadir jërëjëf tur euh, boobu itam la ñu bare laaj nañ ma ko ndax daf leen jaaxal Bamba waaye tur dëkkul fen waaw ah, mais ñun suñ seen direct moom fii la lépp di leere dañu bëgg xam lan la. xam naa loolu moo tax ma bëree bëri ndax boo demee ci xaadir yi dañuy wax ne bàmba Seck do xaadir euh, do murit la nga dem ci murit yi ñu ne lu tax mu nekk mu tudd bàmba mu tudd bàmba dem di nekk xaadir. waaw ma ne leen. Mhm. ma ne leen ba yàlla dee wax ne. Mhm. kullukum ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يين ينا تخون تور دكل فين امنا كو خام شيخنا شيخ صاد بلا تودو نيك طالب شيخ عبد الكريم باكي لوتاخ لوتاخ دمو لاج كو خام ناخ ديغ نان ما كون بوما سوما لا تشوكون لغي تي شيخ ابراهيم فال دي نكو ماي باب غورا سام لا اله الا الله شيخ رفال ليسان summer. xam naa ne kii ma dajal tey bàkk naa mbër. ndeysaan da sëriñ parce que li may dégg dafa doy waar daa maam Cheikh Ndiaye mën a faraxati Ndiandeem. waaw ñu ngi ciy ziare sëriñ Bada Fall mu sëriñ Basirou Fall alxuraan di ci ziar bu baax naaru maam Awa Fall ñu ngi ciy ziare bu baax sëriñ Moustapha Fall ñu ngi ko ci ziar bu baax waaye nag di ci ziar sa xarit bi nga xam ne rii bu mag bi moom lañ ko tuddee. fecha tali bu mag kooku moom dama lay bayil nga tuddal ko sa bop sa soppe sa xarit Serigne Bamba sek ñaata cassette lam am eh, lolu mom euh, ja ñun defe ñaari cassette lañu am waaye su li buri bi di bari ciowli di bari lepp ñaari cassette def naa ah, ñaar ñaar la da ñaari cassette ñun ñaari cassette lañu am de xana ak ay ak buri bi ni mu bare ni aduna bepp ak ay single xana yo ay <laughs> ak ay single Papa goro dégg nga lim la bàkkal sa waa ji daa booy maam Cheikh Ndiaye mënu faraxati Ndiaye de maam Serigne Amdi Yacine Fall. Mm-hmm. maam Serigne Amdi Nogoy Fall. maami Cheikh Abdou Chakour Fall la ko bàkkal ñun sit bi nga xam ne àdduna bépp moom la ñuy xaar muy seen direct bëgg nañ nga produiral ñu suñu waa ji te mu bañ a yàgg ndax man nga ko Pape Gora te Cheikh Ibra rek moo la ñor te boo déggee li muy waye sans rythme dina la ko may mu wayat Cheikh Ibra ba maa bëgg nga jappalé ko muy Serigne Bamba talib Cheikh na Cheikh Saad la way Serigne Bamba lañ ko dippé wayal ko Cheikh Ibra kase bari ya la la ilaha illallah la ilaha illallah ibala ndeysaan la borom jaami إله إلا الله لا إله إلا الله Sang apa tubaarkàl la ah fi mu nii xolam ba sedd na guy waaye xam naa ne moom moo ginne caméraman yi damay bañ mu jël caméra bi sànni ko ndax Cheikh Ibra rek moo ko ñor. Mm. muy mëmoo muy sama caméraman bii nga xam ne moom. Cheikh Ibra Fall. ne Cheikh bu déggee lii fi lay jaare sunu PDG moom it fi lay jaare doon Baye Fall ah daba moom yaayam Serigne Bamba lañ ko dippee mooy Touba Diop sunu yaay jooju ñu ngi lay jaar di la ñaanal jàmm sunu borom defal la jàmm naa ko daba suma xoloo waale bi. ah tey émission bi dafa dafa dafa alaat daw me mais Serigne Bamba ku soxla woon sa numéro. bëgg ko am ak sen direct ci émission dal jam nan la koy amé moy numéro nabien rek moom comme nima ko waxé ñun ben numéro lañu am mom lañu yag di joxé fep moy Cheikh Bamba gëwul sayyidina mohammed eh, euh 77 238 61 37 77 238 61 37 rek nga jeg nga am nga am Serigne Bamba sek, mom mi ngi nonu waaw mais Serigne Bamba. pandémie bi maanaam feebar bi nga xam ni moo lëmbe àdduna doy waar loolu tax yaa ngi koy wax sànq ngeen jàppoon ay programme yu bari suñu borom dogal mu fomm ak soppe yi après naka ngeen dunde waa Abdoul boo amee yàlla am yonent bi amu euh, ñàkkoo dara boo amee yàlla am am am yonent bi. ñàkkoo dara parce que lii ñuy def nii yàlla daf ñu cee dimbali nag soppe yi bare lool bëgg ñu yëguñu ni wax dëgg yàlla euh, xaw ma pandémie la tudd xaw ma ñun yëguñu ko. Mm-hmm. li tax parce que foo nekk di tagg yonent bi euh, nga jàng wala nga ñàkk benn bañ a jàng ñi la bëgg chaque jour ñu ngi lay bàyyi xel. te xam nañu ne mm-hmm. euh, ñëpp dañoo toog benn place defatuñu dara. Mm-hmm. wante yàlla mi ngi indi ndimbalam si ñun. Euh, ñi may ànd ñi xam nañ li may wax léeg-léeg nga xool sa téléphone gis ci loo xamante ni euh, yeneen bi rek moo tax ñu def ko. kon yéen BSDA lii muy yónnee mbalax maan yeeg waykat yi jot ngeen seen message. waaw am na am na da dégg naa ne am na ñu jot dégg naa. jàngkat yi jotuñu. waa dégg naa am na ñu jot man de jotuma gisuma wante ñi ngi jot ci yàlla ndax mi ngi ñëw chaque jour. Mhm. ndax yàlla nee na. kullukum aarun illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum mhm. maanaam joxub yàlla dàq joxub doomu aadama mais sa sa sëriñ sa ñaari kaset yooyu yóbbu nga ko BSDA tamit waaw man ñaari kaset yooyu man xaw ma sax foofu du BSDA nekk boo bëggee dégg dëgg mhm. sodaaf sodaaf la tudd léegi. sodaaf waaw li tax ma xaw ma xaw ma fu bees daa nekk. Mhm. ndax euh, bi may bi may génne man kaset jamono yi kaset. Mhm. duggee wu ma ko woon kaset dama ko bëggoon dama ko duggee woon rek ñu xam kan mooy Cheikhna Cheikh Sadbou. Mhm. kan mooy Cheikhna Cheikh Sadbou. mooy ma bëgg nga taxaw foofu parce que dañoo dugg ci biir Pikine gis tali bu nu tuddee. sëriñ Mbacke Pikine muy tali bu bees gis tali bu nu tuddee sëriñ kër si muy tali Icotaf bi ñu gis. ridis bi ñu tudde ko maam Limaamu Laay ndax maam Limaamu Laay ci guy gi la doon noppaloo fii mais tali bi fi gën a mag yor marché zing nit ñi di fi jaar mu jàpp Dominique ñu tudde ko Cheikh na Cheikh Sadd mhm. kan mooy Cheikh na Cheikh Sadd waaw nag laa may ñëw ci Serigne Birahim yi borom borom borom émission bi mi nga xam moom laa ko moom laa ko may mhm. boo ma laajee kan mooy Cheikh na Cheikh sama sa fépp foo xamante ne am na karaw ci man day yëngatu maa ngi ciy nuyu Cheikh Yacine Doucouré mhm. di nit ku baax di yaayu xaadim maa ngi ko ci ziar bu baax a baax kan mooy Cheikh na Cheikh Saad boo ne kan mooy Cheikh na Cheikh Saad moom laa la bëgg a wax ñàkk péete day xañe wërsëg ki tax ñëpp xam Cheikh Bamba sek moy Cheikh na Cheikh sadbu kan moy Cheikh na Cheikh sadbu moy ki nga xamanteni yent yàlla Muhammad moy mamam kan moy Cheikh na Cheikh sadbu Cheikh na Cheikh sadbu moy ki nga xamanteni ne fa innana abna Fatima albatu wal halu shahidun aghwa min al udul nuuru nubuwati alayna la yazul tawarazat lahu al fuxul al fuxul boo bëggee yonent bi da ngay beug Cheikh na Cheikh sadbu kan moy Cheikh na Cheikh Saad Bou Abdou Aziz soo laalee Cheikh na Cheikh sadbu nak émission day dali tàmbali. kan moy Cheikh na Cheikh sadbu Cheikh na Cheikh sadbu kan moy Cheikh na Cheikh sadbu Bou. ah cëm <laughs> ay bu ñu laalee Cheikh Rafa da ngay yëngatu. kuy Cheikh na Cheikh Saad waaye bu ñu laalee Cheikh na Cheikh Saad bu nag dangay ngay firi jóg toog xam ni yoruloo koo xam dañ koy nëbb. kuy Cheikh na mooy mooy ki nga xamante ni bi mu waree ganee àdduna 40 jours yàlla jël turam wékk ko kaw asamaan wàllu yi yëpp. gis ne am na koo xamante ne moo war a nekk sangu jinneeg malaayika ci jamono ji yaa man tanaza bil kamali an waladin wa walidi xussa bil baqaai wal qiddam kan mooy cheikh na cheikh Saad kuy cheikh na cheikh Saad mooy gis nga jaxa adduna bi mu jaxasoo bi mu jaxasoo yéen yi ngi gis benn vidéo ñu def sa vert jaune rouge kee moo ko way mu naan baarik lana yaa rabbana fii Sénégal bi jaayi afdala nisaai wa rijal cheikh na cheikh Saad bu boobu boo déggee jàmm am na cheikh na cheikh Saad bu la. kuy cheikh na cheikh Saad mooy ki nga xamante ni moo dugg si Sénégal jël ñi fi nekkoon euh, ceddo ñëpp mu def leen waliyu yàlla te cheikh na cheikh Saad bu 313 313 cheikh la defar fii defar 313 cheikh fële Nimjar gànnaar te ñaari yoon la mës ñëw. la ma sa ñëw Dakar. fu mu dajeeg sëñ Bamba. fu mu dajeeg sëñ Bamba mësuñu gisante. fu nu déggante. déggante par lettre. nun ko nun ko déggante. da ma laaj kan mooy Cheikh na bu ma la bëggoon développé mhm. damaa bëgg nag cheikh yi laalanteeg moom ci ay fu mu lu mu leen wan nga wax ma ci. xajul ci émission dama la ci jox kenn. Mhm. boo gisee gaynde da ngay daw. muy kan. Mbanjaate Fatim Mbaye Cheikh Yérim nu Mbane. bala ko dumaane Mbaye. alxayru يوم البيد شالنا قطب الوجود إمام كل ملجأنا maam bi Cheikh Matar Cheikh borom yàlla nee ak nu mu demee. gisante wu nu da woolu mu fekkoon imsa ci teel feeñu mu dem. déggoo ma de Abdallah Aziz man maay Cheikh Mat Bamba mu Cheikh Sadbou nag. je pas froid aux yeux. Mhm. Cheikh Sadbou li mu def ku ko mënul waroo kenn. Cheikh Déthié la dañ koo bëmbax cib teen teen bu xóot Cheikh na Cheikh Saad feeñu ko fa ne ma nim saat ma defar la muy maami Cheikh Mata bi nga dégg nga dégg gaynde mhm. li tax mu def mu def ko gaynde mhm. xanaa yëgoo ni gaynde gi li ko waral lépp muy ni Cheikh Ibra nekkee gaynde noonu la Cheikh na Cheikh Cheikh Déthié nekkee gaynde ñu bokk benn maam na Cheikh ki nga xamante baarik lana ya rabbana ya rabbi bi rahim wa rahmani وبصفات الواحد المناني وبالنبي المصطفى العدناني ومن لوى من تابع السمداني ومن لوى من وارث الروحاني وبالجنيد ربي والجيلاني وشيخنا الفاضل والتيجاني شيخنا الشيخ سابق قطب الثمان كيف الشيخ ديتشالو؟ شيخ ديتشالو مو نيخو مو دافال كونان شيخ ماتار شيخ باتشالو موي بروم غوران مو دافال كونان شيخ ماتار جو بروم دارو جو بروم دارو جو سو بغي خول شيخ سابق ji te gisuloo ko demal nguraan nga xool Cheikh Déthié la war a xool ki mu def mu Cheikh Matar borom daara Jóob di sëriñu kii toog na Cheikh Saad bu mooy ki defar Cheikh na Cheikh Tourate ci kaasub ataaya Cheikh na Cheikh bu ah Serigne tey seeram tàng na. waaw da nga ah, la. mbaa dama laal laal laalaakee man nag kaay mox la kenn feesu sama bët ku du Cheikh na Cheikh Saad bu rek. ku tudd pour lakk mburu de. boo ma laajee kan mooy Cheikhna Cheikh Saad bu ci li nga xam dafay dem may laam-laam la naan kii complexe la. maay premier élément Cheikhna Cheikh Saad bi ko defal clip defal ko télé ci année boobu 2008 ma jël meilleur clip. kuy Cheikhna Cheikh mooy ki ki ma waxoon ay jamono. ni ma la day woo dinaa. maam Cheikh Saadul Habib ku la gëm yow da dexe saabo ñaale la xol yi sedd nañu guy sëriñ defe naa ne bu nu bu nu bu nu yàggee sax émission bi ñëpp mën na noo daanu ndax Cheikh na Cheikh li nga ci leeral dafa bari léegi ñu bàyyi la nga wax sa ki nga xam ne mooy sa parrain nuyu ñi nga bëgg a nuyu bu ko defee nag nga am air boo tëjee ndax xam man ak yow dinañ dajawaat de ci seen direct. waaw gi ñëw. man ak yow. ci ci bâche bi la ci <coughs> boobu groupe bi yëpp ay ñëw nag parce que groupe dafa danga am danga am group waaw ah, waaw ay groupe sax groupe ay groupe soppe Cheikh mais nag ma dindi léegi soppe Cheikh Bamba bi tuddee ko groupe ëttub Seydina Muhammad man jarul ma sopp dañu tudd groupe yow yaa ma ko ubbil sax. kan yow yaa ngi may dugal de. ah groupe bi kay yaa ubbi man la miskuru naa sala fu ma toog ma ne su ma demee ba am ay groupe premier groupe bi moo jur groupe yëpp yaa ne ma da ngaa bare ñi la bëgg mënoo di woo ñëpp ubbil groupe nga dajale say soppe. li ngay wax nga wax ko ñëpp yëg. sëriñ Bamba ñan ngay nuyu ci comme ñu ngi ci njeex. yow laay jëkk nuyu di la sant di la gërëm di lay wax ne waa ji dañ ko wax ne yàlla na yàlla fay sa xol mu jooy ñu laaj ko looy jooy mu ne damaa ne bu ma yàlla fayee sama xol sama dara du baax yow Ndiaye sañ naa wax yàlla na la yàlla fay sa xol nga toog di reetaan ndax xam nga bu la yàlla fay sa xol nga kontaan. baax nga iñaanoo soxoroo bëgg nga ñëpp avancé lii nga def nii mënoon la cee bañ a fekk nag barke Cheikhna Cheikh Sadbou kon da lay yàlla yàlla yàlla yokk la sa émission bi mu nekk ay émission émission muy émission dala jàmm ak si ak seen euh, seen direct di nuyu sa caméraman di nuyu sama xulwaale moo ginne caméraman ginne ginne caméraman ginne ginne caméraman euh, yi euh, Momo mhm. ñu ngi koy nuyu nday daba mu baax mi nga xam ne nday sama doom laa ko tuddee ndax sama doom jee nday daba la tudd mhm. waaye itam nekk doomu Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam suñu directrice wante balay dara man nuyu ki nga xamante ni nag mooy waa ñoo waa waa waa waa raay bi fi fitness. Mm-hmm. mooy fi ñuy tàggate suñu yaram suñu. ndax ñoom dañuy waa raay bi fitness. ak kan moo la décoré lii. Euh, ñi ma ko décoré nag euh, nu ñu tuddee sax ñooñu. Balier Zar hmm, ñoom ñoo décoré mbir mi ndax ñoom lu may def ñoom ñoo koy décoré ànd ak sama doom ji nga xamante ni ñoom ñooy ànd ah di di di di di leen di ñaanal yàlla. Mm-hmm. wante balay balay loolu. Euh, damay nuyu bu baax a baax a baax ki nga xam moom mooy parrain bi mhm. mooy borom yaa lay xam nga itam il faut que ñu koy borosala bu baax parce que moom la ñuy tuddee émission te mi ngi toog di déglu mhm. mi ngi toog di déglu mhm. te xam naa ne après bëgg naa bëgg naa ñu joxe numéro am allah ngeen euh, ndax euh, parce ñu baree ngi sonal la ah, service vocal maanaam daba ñi ngi koy sonal di laaj numéro am te Serigne Bamba li ma lay wax rek moom su bëggee mën naa ñëw seen direct liggéey ci wàllu communication lu bari parce que am na nit ñu bari ñoo xam ne ñi ngi koy soxla su woo woowee daba am na lu bari loo xam ni dinañ ko ko yombalal defal ko ay xéewal yoo xam ne du metti ci moom bu ko defee nekk sponsorise li nga xam ne moom mooy émission dal jàmm ñi ngi ko ciy xaar di ko wax na ko. Serigne Birahim Niang la tudd Serigne Birahim Niang mu baax moom. Serigne Birahim Niang sëtu Alaaji Tidiane Niang mu Ndar. Mhm. borom nuuru nabi. Mhm. borom yàlla nee na. borom kooku macha allah daal. Mhm. yàlla naka yàlla. Serigne Birahim ñi ngi lay woo nag bëgg nga jàpp ci émission bi bu baax a baax parce que àdduna wërngal këpp dana koy seetaan. Hmm. kon nag ñang maa ngi lay a baax moom mi nga xamante nii ni eh, Serigne Babacar si Eh, moom muqaddamaal maamam alaaji Tidiane Niang mm-hmm. eh, foo ko mës a gis gis kook alaaji Tidiane mm-hmm. eh, dëgg yàlla mu nekk borom xam-xam bu mag koo xam ne day faj aajo yi koo xamante ne nëbbatul Aziz mm-hmm. koo xamante ni day génn ci internet yeeg di génn ci TikTok yi di expliquer dañuy gis kay waxam dafay macha allah macha allah kon nag moom Euh, mu ne ma Serigne woo ko mu ñëw dama bëgg mu ñëw ci émission bi. dafay ñëw dafay ñëw mi ngi seetaan yow xaaral rek mi ngi seetaan. Mhm. mi ngi seetaan te moom dafa nekk koo xamante ni ci social rek lay dox. Mhm. te nee na ma Cheikh Baba man quoi mu ne ma man du ma du ma bëgguma ànd ak koo xamante ni du avancé. Mhm. nee na ñu ah, bu ñu avancé bu ñu àndee trois mois rek avancé woo rek bàyyi ma. bàyyi ma waaw bàyyi ma bu jaratu may ànd moo tax yàlla. kon moom nga jagleel bis moom laa ko jagleel ndax euh, lu muy def woo ma fu mu jëm woo ma. te laajal xale yi ba bërki dem rek la ñu war defante ak ñun teraanga bu mag. en tout euh, cas xale yi yéene la ñuy la ñuy waaw ñii dama leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla bàyyi ma ak ñoom. Mhm. xam nga ànd ak nit ba mu xëy suba wëlbati ko bàyyi ndeyam bàyyi baayam tuddee la doom loolu fëri. Mhm. mooy jëmm ji mhm. kii wëlbati ko jëlaat doomam bàyyi yaayam bàyyi mbokkam ñu tuddee sama soxna. kon sama ànd ak ñoom. sama mhm. soxna yalla la sama soxna amna ci turondo man amna ci turondo hmm? kon deug la deug la kon yalla na yalla defal len jàmm mhm. yalla may bàyyi maak ñom nak mhm. ndax bi ak bi dafa doy ayante ma sha allah ndokk ba nga xamantene sama diggante ak ñom lundi matin ak lundi soir bis doxu ci diggante kenn mënu sama diggante ak ñom dara numéro serigne bi nan la ñu numéro serigne bi xamna ni xamna dama koy genn fi ah, sama jang na dafa sorewul waye di gërëm itam sama taw bi tok di ma hmm? euh ak euh, cheikh jaan sama rak eh? ak sama xulwaay bi ñew leg dañu xuloo dama ko sama émission mëna amal non c'est à dire man ko bo ñëwee ak sa ak sa yaay turondo wa koku moy talibé Cheikh Matar. hmm mom da dang ko bëgg ba do ko xol wa daf mo moo bëgg am ci man kersa rus ma. Mhm. moom du ma xool mi duma xol déjà mom duma xol nit nak bu la rusee nga rus ko. ya may dégg té itam mu bëgg ñu comprendre ñu xam ñu mom xam nañu ñun ñu dara. Mhm. mu comprendre rek nak yalla yàlla ke borom kër non waxuma borom këram bamba mais sama bamba mi laay wax woon. sama ah, yow kon borom këram moom li sa bamba ngay lijjanti. bamba sama bamba mi daal. Ah, laay lijjanti jox ma numéro bi sëriñ numéro numéro mi ngi nii ku ma ko mën a génneel fii. bi euh, la temps que may gërëm euh, ñoom Seynabou Dieng ñi nga xamante ni yëf xat na dem rek laa leen woo ah ñu bàyyi seen lépp ñëw. Eh, ndax loolu la ñu àndee. di la wax nag eh, ñu ngi préparé Abdoul Aziz lu dooy waar te bëgg naa ci ànd seen waa télé bi itam. Mm-hmm. seen dégg seen seen direct. Mm-hmm. mooy que guddi yenent bi nga xamante ni ren demuñu soraanoo waaye Batora fii lañ koy defee. Mm-hmm. waaw waa buñ la mënee dig na la euh, bu boobaa dina ñëw bu lay neex ñu présenté ko ba pare seen direct def ko direct ñëpp di ko seetaan parce que bientôt rek àdduna wërngal këpp dañuy def live ñëpp di ko gis. waaw yoo xam nga déjà même bu nekkulee seen direct bi yoo xam nga ne man fu ma nekk yaa yor sama micro yaa naan ma defal nii defal nii noppil mm-hmm. heure bi jot na génnal jël micro bi mm-hmm. kon defe naa ni kooku yow yaay doxal rek après ah. waaw numéro téléphone bi numéro téléphone bi eh, di nee na 77 la comme yéen ñi soxla Serigne Birahim Niang mii mm-hmm. borom yàlla itani borom kurus gi 200 296 73 73 13 maanaam 73 après ngeen defaat 13 Serigne Birahim Niang waxaatal numéro bi deux cent quatre vingt. quatre treize. treize ah. ku ko bëgg jot rek mi ngi noonu nekk koo xamante ni euh, mi ngi fii ci Ouest Foire gi di fajal jaami seen soxla nëbbatuwul. kon bu na amee émission bu toll nii ku ko jagleel yàlla képp rek moo tax ndax dañuy man tele bu ñëw ci man jël si ma chaque jour damay am benn parrain tey nag lii euh, daf maa ñor lool lool lool lool lool këram sax lañ ko waroon defee mais nekku fi. en tout cas daal euh, na xam ni émission bi ci ñi njëkk a waxal ne ko na ñëw nekk sponsor officiel bi ci la bokk. Mhm. seen directeur ngi noonu waaye Serigne Bamba Seck ban heure ngay tàggoo. waaw heure bi may tàggoo rek mooy que dañuy tudd yàlla euh, dellu ci yàlla balaa ñu ñuy delloo yàlla. dellu ci yàlla nag Abdelaziz jot na. jot na dëgg la émission bi jeex na waaye mosuma def émission ba pare te waxuma dellu leen ci yàlla balaa ñu ni delloo ci yàlla. Mhm. te it ñu wax ne julli leen balaa ñu leen di jullee nit day julli mm-hmm. nit day julli sama problème yëpp mooy li yonante bi waxoon kullukum raay wa kullukum mas'ulun an raayatihi kenn ku ci nekk sàmm nga te bu ëllëgee dina la laaj ni la sàmme te bàmmeel xat na lëndam na te it ku defee ne àdduna bi dafa sax ba nga bañ a julli nekk ci loola neex yet yi lay dal mi ngi lay xaar ci biir bàmmeel te balaa ngay dee la la ko yàlla di woon fii mm-hmm. bu la mbooloo toppee na te waxoo leen atiullah wa atiu rasul topp leen yàlla topp leen yonante bi ah dal yow la te ñun ay njiit lañu mm-hmm. te ñi ma àndal xam nañu ne loolu mooy sama message chaque jour julli leen balaa ñu leen di jullee nit day julli doomu julli day julli. Mhm. lii lii eh, ñoom ñëpp miis nañu ko ci man. Mhm. kon lool laay lool laay loolu laay sànni message boobu di ñaan yàlla. feebar bi nga xam ne moo tënk ñëpp yàlla na ko fi yàlla jëlee. yàlla def ci Séné ci Sénégal bi coow li xew na coow li ko te am nañu yaakaar sax ne eh, jeex na. Mm-hmm. jeex moo tax nit ñi sax ñu ci nangoo waxati. waaw waaw mi ngi noonu waaw mais dañuy ñaan gën a ñaan rek comme ñaan moo tax mu mu fa mu mm-hmm. gën a ñaan yàlla ndax yàlla moo ni ad'uuni astajib comme ñaan leen ma ma may leen. Mm-hmm. kenn xamul làmmin bi nga xamante ni. Euh, moo am barke làmmiñ bi am barke yàlla moo ko xam mhm. kon nag yàlla yàlla fay coow yëpp ba ñoo dellu seen ay yitte ñun xamuñu dul tagg yonante bi ñun ay grand théâtre la ñu xam ay Sorano ah euh, kon ñu air air bi noonu air bi may wee nag xam naa ne du nekk ki air dañ koy raamale noonu rek ba xale yi ndax air bu bees la mhm. euh, way ko yonante bi mhm. incha allah taala di bu pare nag ba ngeen ba ngeen débranché ñu bégal suñu xol suñu bopp ba suñu kon nag dama maa ngi lay ziar yi di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm e, ndax li yow it nga ci as lu mu ci sonn benn sonn nga ci ñaar dégg nga kon dañ lay ñaanal yàlla yow it seen télé bi yéen a xam fi ngeen bëgg mu àgg fa yàlla ñi nga xam ne mooy àggale yàlla na ko fa àggale te ngeen fekke ko ñu fekke ko ci barke yonent bi numéro boobu ci suuf nag da ngeen ko xool képp ku ñu soxla rek mën cee contacté wu di ngeen jot e, suñu service commercial moo ngeen wax ak moom fépp fu waay nekk rek moo xam koor gi moo xam produit boo mën a jaay rek dinañ la ko jàllale ak nu mu gën a gaawee waaye bu la neexee tamit nga woo ma tamit ci 77 574 39 06 mais numéro bi ci suuf daal moo gën a wóor woo leen ñu boo leen wootee di ngeen jox soxna su baax te bu waxee ak rek ngeen xam ni baax na. billaahi wallaahi tallaahi yàlla moo la tànn nga di gën gi mi ndee. wallaahi tallaahi yàlla moo la def la gën gi mindee billaahi billaahi wallaahi tallaahi billaahi wallaahi tallaahi yàlla moo la sàkk nga def gën gi mindee mindeef la gën gi mindeef billahi wallahi taala waa seen direct billahi wallahi taala ya rasulallah fi yonen bi fi fi yonen bi fi saaka nga di gën gi mi billahi wallahi taala ya rasulallahi billahi wallahi taala yàlla la tax na def la gën gi mi ndee yeneen bee fi ñaaw yonneen bi doo fi ñaaw billahi doo fi ñaaw yonneen bee yàlla la tax na def la gën gi لولا كما قلت الشمس تلا قمر بالله والله تلا يلا مولا تاني دف لك ولا قمر ولا بالله والله تلا سيدنا محمد بالله والله تلا قريش يلا مولا تاني دف لك رسول الله والله تلا ولا نار ولا ملك يلا la tànn def la gën gën gën. yaay muxtaar illaahi wallaahi taalaa. yonent bi mooy muxtaar. illaahi wallaahi taalaa. alil maqaamaati yaay muxtaar. Seydina Muhammad. illaahi taalaa. li maqaamaati yaay muxtaar. ay musalaamu. Seydu Saadaati yaay muxtaar. illaahi wallaahi taalaa. ay musafaa. billaahi wallaahi.

sëriñ Bamba Seck ndax xam naa ne lii nga ma may nii ci sa bopp ku la soxla woon dina metti lool waaye jërëjëf bi ma ko yombalee waa seen direct di kontaan ci yow bu baax sëriñ Bamba Seck ñu lay wax ne la Pape Gora Samb sëriñ Bamba Seck a nii bëgg nan nga jàpp ci mbiram bu baax sunu PDG sunu nijaay sunu xarit tey jii defe naa ne àdduna wërngal këpp ay rakkam ay mbokkam gis nañ ni nga ko bàkkaree Cheikh ndax moom rek lay dundee. sen direct nak di télé askan wi bu ñu né site internet nit ñi ne déedéet ndax image bi mu yor communication bi mu yor sen direct rek mom moko yor Serigne Bamba Seck du yag dara dinañ jàkkaarloog mom grand théâtre gaay né ne du dem grand théâtre ndax jamono ji ñu toll am nañ fu raw grand théâtre muy Botora kon nak yalla nañ ci yàlla yóbboog jam Serigne Bamba Seck sa numéro téléphone nga may réparé waat rek wana wana waxaat ma bu ko défé ñu daal di tëj. waa di nuyu borom télé bi comme ni nga ko waxee Pape Gora Samb. Mhm. di ko ñaanal yàlla ci doole Cheikh Ibra. Mhm. yàlla def ko mu nekk ci euh, ci milliardaire Cheikh Ibra yi. Mhm. Euh, télé bi itam mu nekk ay télé yi télé. Euh, di di la gërëm di gërëm caméraman. comme ni ko fi mu nekk moo yomb de mi ngi fii rek. fan la nekk soriwul. fan boo ñëwoon léegi ma yóbbu la fa. waaw da ngay wax maris maris. boo demee ba maris. bu foo taxaw. boo ne seen direct. ci wetu Auchan bi. ñu jël si la. jeex na kon nag mi ngi noonu comme yéen a ko dégg télé bi mi ngi fii ci Maris kon incha mu ngeen xam ne ñun waak Pikine nag Patte waag kon am nañu suñuy télé bopp yal na ko yàlla gën a barkeel euh, di wax ne numéro téléphone bi encore une mooy numéro Nabien laa du numéro Cheikh Bamba Seck mais Nabien euh, leen di jox ñëpp nag incha du yàgg léegi léegi rendez vous Batora wa salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa Serigne Bamba Seck jërëjëf ñu ziar baax.